avant loolu dégg nañ fi góor ñi ni ma la ko waxee ñuy attaqué xam nga xam nga yaa ngi wax discipline de parti mais seen parti bi am na commission de discipline kenn waxul ñooñu dara kenn traduire leen devant la commission de discipline kenn waxu ci parce que ba tey ñoo ngi continuer di dégg ñuy ŋàññi Amadou Ba coow li jóge ci góor ñi ñëw ci yéen jigéen ñi ba ba tey président waxu ci est-ce que tam ñun mënuñu jàpp lii di am président bu ci loxoom génnu leen am na loo xam ne aussi il faut ñu wax ko te loolu dafa am euh, suñu parti mm. les institu les les si les structures marchaient comme il le fallait xëy na am na yoo xam ne du am parce que tamit il faut dire les choses telles qu'elles sont structures yi suñ doon marché normalement xëy na am na yoo xam ne du am parce que tey man mënuma gëm nga nekk ci gouvernement wala nga bokk ci parti gëm Macky Sall mu choisir Amadou Ba nga koy xas wala di xiiroog ŋaayoo man loolu mënuma ko gëm et en plus moi je vous dis on est on va vers des lendemains incertains on a autre chose qu'à faire qu'à se réclamer des paternités de groupe WhatsApp kii di ubbi fii kii di ubbi fii il a autre chose plus important que ça moi je suis pas dans ces détails et je suis dans aucun cas euh, hmm. man bien vrai que j'ai écouté les audios parce que Sénégal gi les tous les tous les groupes sont sont infiltrés mm. loo bëgg a dégg di nga ko dégg mais je vous dis moi je suis pas dans ce genre mm. des détails okay. ceux qui se crêpent les signons su fekkente ne il se ref euh, chacun veut se euh, prévaloir de gérer être administrateur d'un groupe WhatsApp ça c'est eux loolu ñoom la man je suis pas dans ça li ma nekk mooy président Macky Sall laa gëm def na choix wam nee na Amadou Ba la Amadou Ba laa àndal di ko liggéeyal bés bu ñu demee ba président changé ko mu wax ma dégg comme la fois passée ni mu defoon j'apprécierai. d'accord waaw j'apprécierai. d'accord mais yéen gëm ngeen ne Amadou Ba c'est le bon cheval. parce que jàpp nañu ne tam li président def yépp xëy na euh, li mu joxe comme raison mooy mbiram euh, Karim Wade ak euh, liñ tuumaal waa conseil constitutionnel mais am na ñu jàpp ne ak ni président doxalee. Euh, li mu bëgg daal mooy xëy na fexe la ngaamu ci loolu la ngaamu ci loolu bañ tëggaat procédure mu changé candidat. man xam nga euh, suñuy wax ay le bon candidat ak le bon euh, le bon cheval et tout mais ñaata ñaata weer lañu toog président war a choisir waxul ñaata nit ba ñu defee secrétariat exécutif national mu laajte ku bëgg nekk candidat ñàkkul woon foofu ñu fa yëkkati woon loxo. Hmm. entre temps lan moo am y eu des consultations. ci consultation yooyu fa la liy jóge désignation bi fa la jóge le président et la personne la mieux renseignée dans ce pays su demee ba choisir Amadou Ba xëy na xam na li tax mu choisir ko s'il n'était pas le bon cheval du ko choisir parce qu'il y avait Amadou Ba et d'autres Amadou Ba n'était pas le plus méritant mais sauf que xëy na Amadou Ba am na ci ay valeurs yoo xam ne wala am na lu ko leer président ne kii mën na porter parti bi maintenant comportement ak caractère c'est pas pareil parce que beaucoup disent d'aucuns disent que il est un comportement c'est de la façon ça détermine la façon dont tu te comportes avec moi ça c'est le comportement ok ça c'est le comportement par contre moom ni mu mel son caractère c'est moom li mu juddoo wala ni mu mel c'est inné il y a des gens qui sont pondérés Amadou est pondéré Amadou Ba est, est posé est très serein okay. et il est courtois bariwul wax et il le dit bariwul wax et c' est vrai nit ku bëriwul wax nag mënoo tëb tëb bëgg koo bëri loo wax bien non def na ko candidat parce que candidat def nekk politique il faut nga wax ak askan wi te foog naa ne Amadou Ba ba mu bañ ko désigné ba tey wax ak askan wi la ne il est parti à la rencontre des populations tegal leen bilan reluisant bi fi président Macky def parce que attention ñun lu mu bon bon tey jii on a un acquis parce que bilan wu président rek candidat wu président bu ko bu ko politiquee yóbbu ko élection war naa mën a gagné parce que bu dul dara président def na fi loo xam ne ñun 2012 ak léegi ku gis Sénégal war ngaa mën a xam ne Sénégal soppeeku na beneen bi mooy hmm. les hautes fonctions étatiques yi Amadou Ba occupé ci dëkk bi war na ko prévaloir moom ci boppam mu mën a nekk président de la République parce que ku nekk directeur des domaines ñëw nekk ministre des affaires étrangères nekk ministre économie et finance ñëw nekk PM porter action gouvernementale politique gouvernement ak politique publique kan moo la gën a mën a mieux habilité pour nga mën a nekk président de la république il a la connaissance des dossiers politiques des dossiers administratifs de sa pays il porte la politique gouvernementale de sa pays pourquoi nit yi war a mën a taxaw naan du moom la ak maam la du nii encore une fois côté boobu dama lay wax il est loisible à celui qui ne porte pas Amadou Ba comme candidat comme ni ko président waxee man dama d'accord man dama d'accord mm. koo xam ne d'accord ak choix bi te nga ne Macky Sall la nga àndal nga am quand même ah mm. l'amabilité de nga bàyyi ne man ànduma ak moom toog jàpp sa njaboot nga a même diine da koo wax mm. boo mu dara boo ci mënta wax lu baax da nga ciy maandu man j'aurais préféré su ma àndul ak Amadou Ba dama ko dama ciy maandu parce que man loolu dama dafa nekk ci man man y a des choses su ma ci bëggul wax dama ciy maandu des fois per certains m'interpellent sur des enjeux du moment an on t'a pas entendu et puis parce que je veux pas en parler ou bien si su ma ci waxee du ma respecter discipline de parti je préfère ma neutre ci man loolu laa gëm mais tu peux pas tey ndombo tànk boo am Macky Sall moo la ko jox mu ne diw mooy sama candidat ngay naviguer à contre courant ça man ana d'accorduma ci waaw li ma d'accord mooy soit damay dem soit ma toog di leen seetaan duma ma ci investiru nag du ma ci def benn investissement du ma ci investir sama doole duma ci investir dara mais damay toog jàpp sama njàmbur di seetaan ma loolu moo gën. d'accord man loolu laa gis est tey ni yëf yi demee nii Amadou Ba même suñ ko maintenir woon mu nekk seen candidat mun na compter ci seen parti parce que tey bu fi parti desee sax man lu may jaaxal lay doon ñii aw nañ nii ñii aw nee ñii ci kaw ñii ci suuf est-ce que Amadou Ba pourra compter sur l'APR. en fait xam nga dafa am lu am. Euh, euh, coow bi yëpp APR la. Amadou Ba du APR moo ko porté c'est une coalition de parti et de mouvements alliés yi kan nga ci gis ku taxaw dingat Amadou Ba ah, on est une coalition de parti yeah. coalition de parti boobu noonu moo porté Amadou Ba du APR donc cette machine la machine électorale boobu machine boobu porté Amadou Ba man je suis d'avis que ak sympathisants yi ak amis yi ak yi nga xam ne dañoo frustré woon war nañu mën a porter candi candidature am yóbbu ko à la magistrature suprême dafa am ñun loo xam ne dañ koy fàtte duñ ko duñ ko duñ ci wax mooy cette masse cette masse silencieuse là qui élit masse silencieuse boobu noonu elles sont de camp parti politique ñu ngi toog yor seen carte toog bu jour élection jotee ñu dem voter xool personne nit ki nga xam ne leer na leen leer yàlla c'est une personne ressource c'est une personne capable qui a des épaules larges qui est capable de porter la destinée de ce pays ñu dem votel ko mais cette masse silencieuse là ba tey waxuñu ñu ngi toog kon loolu da lay wóor ne la que ce soit parti que ce soit sympathisant et ami am na ñoo xam ne ñi ngi toog di xaar bu boobaa dinañ dem voter man li ma gëm mooy Amadou Ba mën na gagner élection yi man loolu laa gëm mais dans l'unité dans l'unité nañu ñëwaat def unité def dynamique unitaire autour de Amadou Ba parce que kuy wax ne Macky Sall nga gëm Macky Sall mooy sa leader Macky Sall candidat wam c'est Amadou Ba donc j'en appelle à la responsabilité de chacun ñu ñëw def bloc def dynamique unitaire autour du du du PM Amadou Ba ñu dem élection ñu gagné parce que nag li fi 2012 ak léegi yàggul gis nañ ñi fi nekkoon au pouvoir wàcc ku ci nekk xam na opposition ni mu mel mais ku ci nekk di def lii foog ne Amadou Ba nga koy def defoo ko kenn faatu hmm. ñoom ñoo am décret yi ku yéeg mooy wàcc ku yéegul doo wàcc. Ah, ku ci nekk fa nga yéeg am fa sa ay privilège bu subaa boo wàccee du nekk même chose égard bi la nit yi doon jox du nekk benn hmm. sa téléphone boo amee décret mën naa sonné cent fois boo buñ la wàccee benn <laughs> benn yoon dootul sonné beneen bi mooy hmm. nit yi nga doon gis dootoo leen gis en plus une base politique et alimentaire il faut la nourir la base si na n'as pas les moyens de ta politique tu nourris pas la base nit su la toppee c'est parce que da ko amal njariñ njariñ boobu nga ko amal c'est parce que dañ la jox ndomboy tànk nga am mën-mën am sa sa loxo yegg fu ñeneen ñi yeggul nga di leen di jàppale comme ñoom ñu topp la mais yow gis nga fii xam nga Sénégal politique bi ni muy doxe fii boo amul ndombo tànk tu es réduit au néant kon man damay ñaan ñi nga xam ne ñoo am ndombo tànk te di diingat candidat bi ñu revenir à la raison def ko ngir Macky Sall mi ñu ne moom la ñu gëm ak intérêt Sénégal parce que fi mu nekk nii dëkk bi fi mu toll jaxasoo na torop jaxasoo na torop jaxasoo kooku nag ñëpp tam seen président lañ ko delloo ndax coow li coow li mooy dàqum élection yi euh, conseil constitutionnel nee na ko